ayca bàkk ba jib na générique bi départ jàngat làmb tàmbali mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safa wasaare làmb ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci ànd bu rafet bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd ak wasaare làmb di jaajëfal wala di féliciter les lion di Sénégal nga xamante ni vraiment démb Sénégal gépp kontaan nañ képp kuy doomu sénégalais démb am nga mbégte ñuy ñaan ndam li yàlla nañu suñu borom di gën a suturaal ba ñu indi coupe bi ndax coupe Euh, Sénégal gépp soxla nañu ko ndax démb bu ngeen xoolee match bi ak Guinée équatoriale nga xam ni macha allah Sénégal wanati na boppam waaye wane na njàmbaar wane na fit wane na fulla ak fayda te loolu la ñuy séentu ci xale yi di leen jaajëfal ñoom ñëpp di jaajëfal ministre des sports entraîneur bi ak képp koo xamante ni euh, yaa ngi ci équipe nationale ba ci douzième gaynde ñu ngi leen di féliciter di leen ñaanal jàmm di ñaanal réew mi jàmm nag di wax. gars yi ruubekat yi ñu naan équipe bi dina jël coupe du jël coupe may leen ñu rek ngeen dimbali ñu dañu soxla coupe bi quoi parce que maillot bi fii dafa war a am benn étoile au moins buy lee ci di ci kaw fii aadama am fii benn étoile sax loolu sag la sagu Sénégal la waaye sagu la képp koo xamante ni doomu réew mi nga mbokk yi démb dafa nekkoon bis boo xamante ni bis bu spécial la ndax démb moo nekkoon dimanche euh, le 30 euh, janvier deux mille deux mille vingt deux waaye démb dafa nekkoon journée yoo xamante ne ñaari làmb dafa amoon en même temps bi match équipe nationale bi di daw lit avec frappe amoon na fële ci stade Jom Iba ki ko organisé woon di suñu papa mu ñang production mu nekkoon journée boo xamante ne journée bu am solo la dañuy dem stade euh, stade Iba xool li nga xamante ne jot na fa xew ci ambiance ci lépp loo xamante ni xew na fa ci diggante tubaabu jor Junior ak xale bii di bébé Jackson ñu dem foofu wan leen lépp loo xamante ne ambiance la ak ci combat bu ko defee ñu dellu siwaat ay ca ñu dem moo ñu féete à gauche yeesoo eh <laughs> Bébé Less yeesoo xale yaa ngi noonu Bébé Less eh Bébé Less de ah waaw Bébé Less yeesoo yeesoo daw na song ko génn na géew moom Bébé Less eh xale yaa ngi noonu tey làmb journée mondiale production Bébé am na benn avertissement yeesoo mbokk yi dafa mel ni Bébé Less moo gën a ñor jël nañ da lay daan da lay daan wala waaw waaw yeesoo daan na Bébé Less daan na Bébé daa jël tànk ba plaqué ko combat bi dox ci diggante Ramdan ak ki nga xamante ni ni mooy Bathie Seras numéro 2 Ramdan moo féete à Bathie Seras moo ñu féete à gauche journée mondiale production arbitre baa ngi koy na am loolu mu léemu taf na ci ci kanam gi laaj na Bathie Seras ku sifflé ba bi de na xale yaa ngay lewaato Bathie Seras numéro 2 Ramdan Ramdan cokaas na léegi Bathie dóor na taw na jàppante waaw. vite fait mbot na ko dala tega 16 daan daanoogul lu mu ko def da yenu da na ko waaw waaw raam daan daan na ko taw ci kawam raam daan daan na ko waaw waaw ma xale ya xoolal ma xale ya da ko wër ndoom yenu ba ci kaw doo ci suuf ñuux ta ngemb la combat bu naa neex noonu abi bi laaj na leen abi sylvain prince bébé xay prince wàcc na ba tolloog moom Bébé Xayti bu na suuf ngay lewaatoo ñootu naa ne daañu xeex dóor na ko laaw na ko eh, eh. Bébé Xayti ko bëgg a jàpp diggante njool ndaamala diggante njool ndaamala ndaama la eh. Prince Bébé Xay jël na ko jël na ko da koy daan daan na ko waaw waaw eh Bébé Xay daan na Prince. bu mooñ féete à droite na waaw waaw nee na gars jóg leen. Bébé Teya yi xaw ma la Bébé Teya jël fu eh, <laughs> xoolal ma boobu la waatoo laa <laughs> ma ngi noonu Bébé Teya jël fu Bébé Teya jël fu jël lu vert li

ñoo ngi di demee wet jël fu Bébé Téya Bébé na léegi jël fu dooragul jël fu Bébé jël na tànk ba jël na tànk ba jël na tànk ba da koy daj daan ko benn congo la arbitre baa ngi laaj ay juge am combat bi jox ci Toubabou Dior Junior ak Bébé Jackson arbitre bi sifflé na 18h18 grand combat baa ngi noonu Toubabou Dior Junior Bébé Jackson Toubabou Dior Junior moo ñu féete droite moo ngeemul xonk li Bébé Jackson mooñu ñu féete à gauche. ngemboo ngemb wu naat bi bokk tubaabu joor junior mbokk yi booy xool moo xaw a sut tuuti waaye bébé Jackson moo ko xaw a gën a gàtt tuuti tubaabu joor wàcc na ba tolloog moom ñu ngay lewaatoo tubaabu joor teg pied gauche bébé Jackson teg pied daw na jël ko eh eh Jackson xanaa daa mer dóor na plaqué na ko plaqué na mbot na ko eh xale dañuy bëre mbot na ko moo nga jël tànk ba sikiwaat nanu na ko plaqué na ko da koy daan tubaabu joor plaqué na ko bébé Jackson tubaabu joor daan na bébé Jackson bàyyi jaamu xoolal lii yaa ngi koy gaañ yaa ngi koy gaañ bu ko gaañ bu ko def noonu tubaabu joor bébé Jackson tubaabu joor daan na bébé Jackson plaqué na mu daanu bu joor daan na mbokk yi gis ngeen combat boobu dox ci diggante Toubabou Dior Junior ak Bébé Jackson mu nekk combat boo xamante ne ay combat espoir la ñaari xale lañ waaye gis nañ jàmbaar gis nañ garmi gis nañ bëre gis nañ fulla ak fayda ci làmb ji man saa su ne su ma naan làmb xale yi ñooy samay làmb lii laay séentu ci xale yi ñëw wane jom wane fulla bëre am ndam ñuy félicité waat bu baax a baax Toubabou Dior Junior di encouragé Bébé Jackson di wax ni taille tubaabu Zor junior bi bu ngeen ko gisee ni mu toll corpulence bi allah bu entraîné liggéey def li mu war a def ci làmb fépp fu champion di toll ci làmb mën na faa toll. parce que yaakaar naa ne taille bee ngi fi te it bu góorgóorloo tuuti gabari bi day ñëw te lépp ci bëre bi tamit am am macha allah am na ndox ndoxtu bëre boo gisee ni mu bëree bébé Jackson ba daan ko am na ndox tu bëre ñu koy félicité bu baax. di encourager bébé Jackson di làmb noonu la nañu gën a góorgóorluwaat ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ gis nañ démb vraiment matsu Sénégal bi moment bi muy am mais teewul stade Diop Iba Mar xale yi taaral nañu ko xale yi taaral nañ ko macha allah stade bi fees na dell xale yi ñëw nañ taaral bis bi làmb ji teel a jeex surtout làmb joo xamante ne dix huit heures et quelque fekk na làmb ji jeex na ñëpp dem nañ seetaani match bi te te te yàqalu leen dara loolu la ñuy xaar parce que mbër yi tamit faw ñuy xoolaat seen taxawaay ci làmb ñiy ànd ak mbëri euh, ñuy xoolaat bu baax a baax seen taxawaay parce que boo xoolee Tubaabu Joor Junior li ko dal bi mu daanee ba pare metti na parce que daan sa morom sa wala say supporter wala ñi ànd ak yow amuñ ci yow sago daw tëb sa kaw ba sa bopp dal ci dër bi euh, mu tëdd fa tëdd bu yàgg boobu metti na yéen ñi ànd mbëri dee leen bàyyi xel saa su ne kiy bëre sonn def effort bu nekk ak bëre nu mu mettee dóorantey kurpañ daan ci moment bi mu daanee nga bëgg a ñëw daw tëb ci kawam wala dal ci kawam kooku day perte équilibre wala dootul mën a taxaw te loolu da ngeen koy gaañ loolu bàyyi leen loolu mbër bu daanee toog leen fi ngeen toog ngeen ciblé mais tëb bi di dugg ci biir géew bi wala yooyu mun naa ñàkk ci làmb ñuy waxaat bu baax a baax CNG bi gis nañ matuwaay yi ñu jol ci butéel yi nga xamante ni moom la ñu wax ni moom la mooy xew ci enceinte bi gannaaw ñu ñëpp ci njabootu làmb la ñu bokk te ku ci nekk am na ci xalaatam boo xoolee combat bu toll ni euh, Eumeu Sène Bombardier nga ni Bombardier day indi ñett butéel ci géew bi Eumeu seen indi ñett butéel ci géew bi bu ñu paasee dix minutes da euh, yoon day dal seen kaw wala dañuy dagg un pour cent ci seen reliquat loolu dafa dafa metti te làmb dekoor la décor làmb bu fekkee ñëw rek bëre kenn du ñëw làmb làmb ku nekk dafa am lu lay indi am na ñoo xamante ni mbër mu ñëw dugg si tuus rek doyal nañ dañuy ñibbi bëggatuñoo def dara ci stade bi pour ñoom seen billet jar am na ñoo xamante ne aspect mystique bi la ñuy seetaan si ñëw gis mbër mi ni muy sottee ay soow salañ salañ yooyu Moustapha Gueye bu njëkk mu yenu ndaa bi daw ba ci digg enceinte bi mu dóor ko fa daw delluwaat loolu jaral na lu ne suñu papa Moustapha Gueye loolu jar na lu ne Ama Baldé mu jël dix litre bi euh, sottee kooku def benn ëffëreem loolu jar na lu ne ci làmb nañ ci gën a bàyyiwaat xel bu baax a baax xool butéel bi est-ce que butéel yi mooy mooy mooy perte temps wala est-ce que accompagnant yi du ku nekk dafa bëgg a doon star ci biir làmb ji gis mbër mu am combat nga gis yi koy topp bëgg doon star ci kaw mbër mi te xamuñu ne làmb mbër mi kese mooy star làmb ñi ciy topp ñëpp duñu star mbër mi mooy star parce que mbër moo déplacé ay mara moo la déplacé yow ba jox la affaire mystique ba tax nga mun koo def loolu nag euh, dañ koy jaajëfal bu baax a baax a baax mbokk yi di li dañuy barastiku rek dem Adrien Senghor làmb ji nga xamante ne Jax moo ko fa organiser woon su ko defee ñu dellu siwaat ci plateau bi ay ca ñu dem mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb mbokk yi amati nañ mbégte nee na ma reporter ta bàyyi kee di dem ci lamb la bokk moof na ko da koy daan daan na daa si noonu moo ngem moo lu vert li wan la ginnaaw moom it naanaan la ci lamb ndaysaan combat bi mujj arène nationale ndam la fa jëlee suñu papa booy kayre moo ko indi compétition bi nu dem ngay gën di gis ay ndaanaan ndaysaan ah daan na ko ndaysaan gëng gëng ay waaw waaw gëng ndaysaan gëng làmba ngi gaskel faqat na xale bi da daan kat api am na Gaskel day daan ci favori yi la bokk ndeysaan mbokk yi ñuy jaajëfal bu baax a baax a baax ki nga xamante ne mooy Diaks production Diaks vraiment gis nañ liggéey bu rafet bi muy def ci lutte traditionnelle bi gis nañ wàll wi nga xamante ni mu ngi koy bay ci lutte traditionnelle bi ñu koy ñaanal jàmm di ko ñaanal lépp lu mu mën ren bu ne yàlla mën lu ko raw di félicité waat bu baax a baax a baax ki nga xamante ne mooy Malick Ngom mbokk yi Malick Ngom arbitre la. waaye arbitre la boo xamante ne mbër yëpp la bokk njaboote Malick boo ko gisee mu taxaw ak benn mbër da ngay jàpp ni kii mooy xaritam kii mooy doomam kii mooy frère am te ndeysaan ni mu melek mbër moomu noonu la mel ak mbër yëpp te loolu la ñuy séentu ci moom des fois mbër daanu sax ci làmb rawatina ci li traditionnel bi ñëw ci table bi Malick na la noo bàyyil noonu mu sedd parce que nangam ak nangam ak nangam nga bàyyi ngir Malick kon loolu cër la. cër la boo xamante ne làmb jox nañ ko Malick Ngom ñu koy féliciter bu baax yàgg làmb yàgg na koo jox cër ndax bu ngeen xoolee wala bu ngeen fàttalikoo tuuti ci ginnaaw diggante Modou am ak Eumeu Sène bi ñuy bëre stade Léopold bi ko Modou dóoree mu daanu arbitre bi dëpp Eumeu rocc prothèse dent bi kooku mooy Malick Ngom te loolu keroog làmb ji ñëpp dañu saluer geste boobu mu def keroog képp kuy doomu sénégalais da nga saluer geste boobu ñu def ba Modou Lo mi nga xamante ni moo doon bëreeg Eumeu Sène sax salué na geste boobu mu def bu ko jag si dara jaalee bis nag loolu cër la boo xamante ne képp kuy arbitre bis boobu sa bis la woon ñu koy jaajëfal bu baax boobu moo nekkoon deuxième édition te ñu ngi ñaan yàlla na nekk ay dixième édition wala vingtième édition wax Malick Ngom mérité na loolu ci làmb ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax ginnaaw loolu sax dañuy dem ci Malick Ngom xool li nga xamante ne jot naa wax ci bis bi ñu ko dara jaale yëg-yëg bi mu ci am cofeel bi mu ci am ci moment bi nga xamante ne équipe nationale bu Sénégal mu ngi football ma ne ko Sénégal mu ne na deux mu ne mu ngi ñaan yàlla mu yam foofu wala mu yokk beneen te mujj naa yokk beneen comme mu ñaanu Malick bi ñëw na ñu dem déglu Malick Ngom te dellu si. nuyu naa la. kontaan yow maa ngi lay fay ji. yëg-yëg nga am tey ci bis mu koy def. defoon na ko terrain gaal gi defaat ko une deuxième fois ma kontaan trop ñi amateurs yi wuyu si ni amateurs yi wuyu si mbër yi vraiment tey am nañ mbëru champion yu bëri yu fi daje kontaan naa trop ci décoration bi. ñu gis say naw la arbitre yi nga xamante ne lamb dafa amoon fee sax lamb ji jeex ak match équipe nationale Sénégal bi teewul ñëw nañ fi ngir ànd ak yow bis sa diggante ak ñoom lan la. bon mel na ni ñoom la ñuy sargal parce que ci ñoom laa nekk ci ñoom la bokk xëy am na yu bëri yu may def sax ñoo ma ciy jàppale ba mu mën a antu donc euh, buñ ma sargalee rek mel na ni ñoom lañ euh, ñoom lañ sargal tey Sénégal day football mënoon nañ combat yi jeex ñu dem seetaani match bi mais ñoom ñoo kaw bàyyi ñëw teewe ko ma kontaan si ñoom trop. gis naa presse bi tamit kontaan naa ci yéen lool parce que yéen ñëpp a groupe ñëw gis naa ñu bëri ñu fi mobilisé wu pour gën a bësal euh, jëmal bés bi. pare bi nag woo na ma wax dëgg fa yàlla muy Badara Ndiaye nekk mag ci man gagné mairie Thiaré Ndial gi yàlla dogal euh, waajuram bu góor feebar ba hospitalisé. di urgence la dem foofu moo tax mu ñàkkul teew mais mel na ni bu ma teewee rek moom teew na parce que sama frère la kontaan na ci yéen ñëpp waaw booy fay nag ñàkk na léegi moo ko jëloon keroog tey ñàkk na demi final na équipe nationale bu Sénégal bi na looy wax ci ñu ñaan score bi yem foofu bu Sénégal mënul doole mu yem foofu vraiment wala ñu yokkaat waaw ndoom li ñëpp si waat Sénégal incha allah kontaan na ci yéen yéen ñu koy félicité bu baax moom Malick di ko di ko kontaanee bu baax a baax a baax. di ko wax ni njabootu làmb moom kuñ ci teral rek teral nañ ñëpp euh, di ñëw ci combat yi nga xamante ni mooy demi-finale yi fa lu ñuy njëkkee mbokk yi dañuy dem ci demi-finale yi seetaan ñaari demi yi su ko defee ñu dellu siwaat plateau bi benn demi-finale bi booy fay la moo ci laalee xale bi nga xamante ne mooy X9 beneen demi-finale bi xale bi di euh, tas yaakaar moo fa laalee Gaskel Jàmme dañuy dem ci demi-finale yi dellu siwaat ay ca ñu dem X9 ndaysaan xale yaa ngi noonu ragal naa combat bee mooy gën a gaaw tas yaakaar ki ngay bëreel ndaanaan la waaye ndaanaan la moom tas yaakaar xale la waaye am na jom xale la waaye mën naa bëre xale la waaye am na cër ci làmb moom tas yaakaar ndaysaan combat baa ngi noonu mbokk sama caméraman bi sëñ Bassirou xamul lu muy def ndax équipe nationale bu Sénégal bi football jëmm jaa ngi fii ci Adrien Senghor waaye xel maa nga fële ca Cameroun ay waay yàlla nañu yàlla suturaal defal ñu ndam at bu jot ñu ne kaan bi suñu kaan la yàlla bu yaakaar tas ndaysaan xale yaa ngi noonu ñu ngi demi-finale bi Gaskel Jaama ak Tas Yaakaar ña ngay bëre Tas Yaakaar daa bëgg a forcer bëre bi door na ko tànk Gaskel daw na ndaysaan ak Boy Faye Tas Yaakaar daa bëgg a forcer bëre bi Gaskel jëli Gaskel am na ngemb xale bi dafa doole macha tas yaakaar macha allah xale la waaye am na force ndaysaan X9 door na tànk Boy Faye Boy Faye windeelu ñëwaat tas yaakaar daan na ko tas yaakaar daan na gaskel jàmme tas yaakaar dem na final diggante Boy Faye ak x ku daan am tas yaakaar Tass Yakar ndaanaan la xale la boo xamante ni bàyyi leen ko xel ci làmb bu caaxaane wut làmb foowe wut làmb lu ne mën am ci làmb moom Tass Yakar daan na Gaskel Jamme jël bu rëy boo ko xoolee xam ni yor na bindu mbër yor na taay bi yor na doole bi ba tey ñu ngi ci X9 ak Boy Faye X9 Boy Faye tas yaakaar daan na Gara tas yaakaar daan na Gaskel moom tas yaakaar ndeysaan national bu na Boy Faye bu Sénégal dugal na bii ndeysaan ci moment bi combat bi di daw moment bi combat bi di daw moment bi combat laa koy seetaane ni en live waaye yi dugal nañ waay jaar ama leen di Sénégal waay ci la Sénégal dugal deuxième biom pour Cheikhou Kouyaté ndax na maa bëgg ñaari jabar Kouyaté kenn moom comme comme borom jabar mooy toj terrain bi célibataire yi xaw ma lu ñuy def grâce gi ak Adama ak sëñ Basirou du ñu dara boo leen waxee dem ji ñuy juutal image di fulal image waaye gàcce ngalaama équipe nationale bu Sénégal eh, am na ku ne ma woon na ñaari biom ba ma koy wax nee naa a ah. Ndeysaan Boy mu ngi ci demi-finale bi ba tey moom ak X9 X9 nag naanaan la dafa mën a bëre Boy yegg sori na fi ñu yegg sori na fi mu yegg sori na di nga ci génnam déet Boy Faye yegg na suuf X9 Boy Faye tegal ko 16 Boy Faye bañ na daanu na X9 daan na Boy Faye X9 daan na Boy Faye X9 daan na Boy Faye x ñuy félicité waat bu baax a baax xale bii di x gis nañ bëre bi mu bëreeg Boy Faye ba daan ko jëlu bu rëy loolu la ñuy séentu ci ñoom xale yi booy bëreeg mbër saa su bul xool li muy indi mais xoolal yow li nga indi démb gis naa ci xale yi jom gis naa ci xale yi fulla gis naa ci xale yi bëgg yéen ñi nga xamante ne ne yéen a nekk ci làmb ñu reconnaître leen ci làmb ñu bari xam leen ci làmb commencé comme booy fay Boy Faye bu yeboo nga gën a defaat effort ci làmb rawatina lutte traditionnelle bi xale yi ñu ngi màgg xarañte bee ngi yokk seen kàttan ñu ngi yokk malgré nag yaa leen ëpp doole mais teewul saa yoo bëreeg ñoom am difficulté yu garaaw ci làmb booy fay moo doon euh, champion CEDEAO booy fay moo jël drapeau chef de l'état teewul booy fay boobu mooy dem ci compétition yi di bëreeg ay xale yoo xamante ne ay jàmbaar lañ boo xoolee x tey ni mu bëreeg yow ni mu combat bi ni mu yàggee ni mu def ba daan la day xamante ne vraiment xale yee ngi màgg ñuy félicité waat bu baax a baax X9 di félicité xale bi nga xamante ne mooy tas yaakaar moom it moo daan Gaskel Jàmme ci demi-finale bi mais moom it xale la boo xamante ne yàgg nañu koo wax yàgg nañoo ci compétition yi. finaalu naag mbër mu ne finaalu naag Boy Faye ñàkk ko finaalu naag Franc ñàkk ko finalu naag Serigne Ndiaye 2 ñàkk ko finaalu ak ay ndaanaan yu bari ni muy finaaloo di ko ñàkk noonu lay finalo di ko jël démb boo gisee favori yi ci làmb ñi ci ëpp moom moo leen daan ndax boo daanee kalmundur daan gaskel jàmme bëre bëre boo xamante ni vraiment rëy na vraiment dañ lay féliciter bu baax di encourager gaskel di ko wax amul lenn luñ la mën a wax bëre bi teg nga ko ci yoon nga doon bëre xale mu dam yeeg yow ba daan la ñu ngi koy félicité bu baax a baax noonu lañuy barastikoo dem ci final bi nga xamante ni moo dox ci diggante x ak tas yaakaar dellu siwaat ci plateau bi final bu neex final bu am bëre dañ leen dem xool kat mooy daan ci final bi ay ca ñu dem arbitre bi sifflé na mbokk yi baa ngi noonu dox ci diggante tas yaakaar ak Tmax wala boog tas yaakaar ak X9 ndaysaan X9 nag marque moto la tas yaakaar moo la féete ginnaaw X9 moom nga ñoom ñaar mos na ñoo laale X9 daan ko tas yaakaar ne ku ma door di nga abal moo éliminé Boy Faye tas yaakaar moo éliminé Gaskel Jammeh éliminé Grand Mbagnick ndaysaan xale yaa ngi noonu Boy Faye moo éliminé Ngoudaye ci compétition bi ay ndaanaan lañu ndaysaan moment bi may wax ak yow Sénégal dugal na troisième pion ndaysaan pour Ismaïla Sarr jërëjëf Sénégal kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa cosaan yi ñaan leen ku mooy suñu ndam mooy suñu sak ñu bàyyi yàqalante bi mooy ñu bàyyi yoole bi booy tas yaakaar jëli na tas yaakaar jëli na ko X9 ñu bàyyi yàqalante bi bàyyi yoolante bi bàyyi saboote bi bàyyi jiital équipe nationale bu Sénégal ba pare di ko fa kenn du noobul tas yaakaar mbot na ko mu bañ ndeysaan tas yaakaar mbot na x9 x9 bañ x9 tas yaakaar x9 moo la féetee càmmoñ tas yaakaar moo la féetee ndijoor tas am na lu mu bëgg ndaanaan la ci bëre xale la waaye bu bëree nga xam ni ndaysaan xale la moom tas yaakaar waaye am na xarañte bëre am na xemmem teefu bëre am na cofeel ci bëre moom tas yaakaar waaye X9 plaqué na ko day daanu daan na daan na ko X9 daan na tas yaakaar X9 jël na compétition bi X9 jël na compétition bi waa gis ngeen combat bi dox ci diggante X9 ak Tas Yaakaar Tas Yaakaar dafa am lu mu waxoon waaye la mu waxoon mu jéew la am daf na dafa dajeeg X9 Gambie X9 daan ko te moom ku ko dóor diñ ko abal yet bi kon mu mel ni 1-0 la amoon waaye 2-0 ñëwaat na ci làmb ji final nag wax dëgg d'habitude tas yaakaar du ci mën a wax dara parce que yéen ñaan ñëpp ay xale ngeen yaa X9 ku ne mënoon naa daan sa morom ni mu la daanee noonu nga ko mënoon daane mais nag psychologiquement ci làmb dafa am loo xamante ni dafay am ci làmb mooy mbër bu sa mental baaxul boo bëree nit ñaari yoon mu daan la rek bu ngeen dajeetee da ngay jàpp ni sa bête noire la te nit mun na laa jiital trois fois bu ngeen bëriwaatee nga jëli ko trois fois li traditionnel kenn mënul kenn compétition la boo xamante ni jom ak fulla ak bëre moo koy def gis nañ nga nga nga xëcc ko x9 bëgg ko zongale moom it mu suivre dóor la caxabal bi dum la ko dóoree nga daan c'est normal c'est normal compétition la làmba ngi noonu ñuy félicité waat bu baax a baax X9 di wax bàyyi leen ko xel ci làmb mbëru simple yooyu lutte traditionnelle mbëru lutte yooyu lutte avec frappe bi dañ leen a war di jël ñuy bëre parce que xale yi dañoo war a bëre boo xoolee X9 ni muy bëree ci ci ay ay champion ay ndaanaan ci làmb di leen sonal tey war na mën di bëre ci lit avec frappe bi gis nañ fa xale bu mel ni Jaase euh, Pël moom tout le temps day ñëw ci compétition yi day wane boppam te bërki démb arène nationale la mujjee am ndam lu rëy moom Jaase Pël écrit sumbi jun la nekk may nuyu bu baax a baax suñu papa booy Kayre di wax ni xale yi saa su ne rek nañuy fexe promoteur bëre dóor yi gestu leen xale yi nekk ci lutte simple bi di leen tëggal ay combat ñuy ñëw di bëri Kalma ñu ngi lay encouragé bu baax a baax a baax ñëwaat nga tooyal sa xaftaan ki la daan xale la préparé waat ngay ñëw ci compétition yi parce que loolu lañ la xamee del ñëw ci compétition yi di gën a compétir boo daanoo tey daanu suba daanuwaat ginnaaw suba di nga dem ba mu gi ku lay daan day am problème di nga dem ba mu gi kenn dootu la daan te yow boo nekkee mbëru séeréer ñëpp xamee la ci làmb del gën di ñëw di ñaaxaat sa bopp ci làmb booy fay gën a la farlu ci bëre bi gën a la taxawaat ci bëre bi gën a la xam ni làmb dañ ci am cër waaye dañ ci am wàll amateur yëpp gis-gis bi ñu am ak xalaat bi ñu am mooy Boy Fayda moo mën ci xale yi moo leen dàq bëre mais dafa amul fulla ci bëre bi loolu nag ku ci nekk sa gis-gis ku ci nekk sa tolluwaay ku ci nekk sa sa xalaat ci làmb waaye loolu yëpp boo diggee ñu koy wax xam naa ne dañ laa bëgg a ñaax nga gën a góorgóorluwaat gën a compété ndax yow mii ñëw ci compétition bi yaakaar naa dem ñaanlu génnee say sarax ñëw boo sañoon yaay jël ndam li waaye nag làmb noonu la ñuy encourager xale yi nga xamante ni ñàkk nañ fa yëpp di féliciter xale yi nga xamante ni euh, dem nañ final wala dem nañ demi final parce que loolu mooy sport mbokk yi di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax encore une fois di leen jëfalaat di wax ni euh, Habib Lecran organiser na journée bu rëy xale bi di Brise de Mer moom moo ci war a bëri loolu yëpp dinañ ci waxtaan journée bi nga xamante ni euh, Big Pato moo ko organisé moom mu nekk mbëru policier yi euh, le cinq bàyyi leen ci xel moom it Big Pato incha allah rabbi loolu yëpp dinañ ci gën a yaatal mbokk yi di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di ñaanal équipe nationale bu Sénégal bi yàlla na coupe bi ñëw ñu ngi koy ñaan di wax képp koo xamante ne am nga xam-xam. wala mën ngaa ñaan ñaanal équipe nationale bi mu am ndam ñu bàyyi yàqalaate bi ñu bàyyi yoole bi ñu bàyyi salteel bi ñu fexe ba réew mi am jàmm yal na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci bitim réew def ko ci mboolem réewu jullit di leen jaajëfal ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb ba jërë ngeen jëf.